15 juillet à l'arène nationale le retour extraordinaire de Petit Production mbokk yi lamboo ko soxla woon moo tax mu ñëw andil leen ñaari xale yi nga xamante ne nii lamb daf leen namoon lool Siteu bu Ngor lastakiri bi doomu Ngor la jël daal di koy boole ak alin Sey numéro 2 doomu Waalo waaye mbokk yi Petit Production yemul foofu ndax Boucher Ketchup du xam ngeen ko daanaan bi champion bi moo war a jàkkaarloo ak Ziza bu Pikine Benteñe écurie Fass moo war a jàkkaarloo ak usine bu Nangalma première édition drapeau Malick Fall borom service continental waaye bu leen fàtte benn yoon mbokk yi Milk Zone dina fa jàkkaarloo ak Modou Anta numéro 2 drapeau Serigne Alla borom Bambey waaye mbokk yi Bou Siteu champion bi dina fa jàkkaarloo ak Ramdan Junior drapeau Modou Fall commerçant bu mag ca marché Petersen Ngoma jàkkaarloo fa ak Pro Lavage drapeau madame Aydara Cheikh Mbaba numéro deux jàkkaarloo fa ak Zeus Sa Jaxaay dina fa jàkkaarloo ak Caatu Ndakaaru Boy Grand Yoff jàkkaarloo fa ak Rajaxe Torodo ak Bébé Dégol mbokk yi Petit Production nee na dafa bëgg bëggalante ak amateur moo tax mu ne supporter 2000 francs amateur 5000 francs loge officielle 10 000 francs sponsor yi gunge Petit bokk na ci Nokia automobile Ndiaye global business Xelcom automobile King Boisson Pro Lavage ci le 15 juillet mbokk yi ci arène nationale ak Petit production namoon nañu ko waaye dinañu doyal trop ci lamb mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar tey ñoo ngi fii Ngor ci teewaay ñu teew fi ci open press su Siteu bu Ngor waaye tamit balaa ñoo dem ci open press bi dañuy bàyyi maamam maamam bi nga xam ne moom moo ko yar ñu bàyyi ko mu nuyu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan maam ñoo ngi lay nuyu. salaamaaleykum auzu billaahi mina sheytaani maa ngi leen di fay. maam tey sa sët sa digganteek sa sët. avant ñëw ñëw ci combat sa digganteek sa sët muy sët bu ngoon mën nga ñoo wax ci moom sa diggante moom. waaw sama diggante euh, sama sët di Siteu yar dégg ndigal fonk fonk ay waajuram fonk ma man mii maamam mu nekkal fii ci kër gi fonk samay doom yu góor yi nekk ci kër gi di ay ndiyaayam fonk papa Mbengue ñu gën koo xam ci ni ngeen koy woowee tur wi euh, papa xaw nu ngeen koy woowee ti sax. waaw waaw. <laughs> waaw xale bu baax xale bu yaru xale bu mën a am lu baax nag ndax xale boo yaroo rek dara du la jomb te xale bi yaru na respecté na nit fonk na doomu aadama lii mu bëgg nag muy mbëre bii yàlla dina ko ci defal jàmm ndax nit loo bëgg rek. def ci jom ak fulla rek yàlla dina la ci jàppale te yàlla na ko yàlla jàppale ci li muy def nii. nekk bi ngeen nekkee ak moom ci kër gi ak làmb ku ne xam ne làmb ji làmb da ngay gis façon bu ne naka ngeen di dundee moom ci biir kër waaw ni ñuy dundee moom ci kër gi rek li xew ci kër gi rek ndax man maay seen maam nekk fi ci kër gi jur fi samay doom samay sët nekk fi mu bokk ci sët yi mais dafa nekk euh, loo xam ne lu lu metti la nag lu difficile mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek ku nekk dinañ ko gis. mais nag il faut faire di fair play ndax man mi seen maam nitu mbooloo laa man yàlla dafa def toujours maa ngi ci biir mbooloo moo tax man mbooloo duma jaaxal mën naa gérer ku ne. bàjjenu gox nga wala politicien nga. waaw politicien laa nag politicien laa waaw nekk ci ci ngor euh, bokk ci ji nga xam ne liy jëmale ngor kanam ci laa dox. ay ci ñu bàyyi kàddu gi Ouzin moom mu sànni ci ay kàddu parce que man dama doon nuyoo rek. ah Ouzin vas-y. alamin rek ak sant yàlla ndax changement am na ci ndax Siteu ku ko xool xam ne Siteu démb ak Siteu tey du benn yàlla na ko yàlla lafal cat nag. loolu laa koy ñaanal yàlla na ko yàlla la fal cat y a beaucoup changement hmm. boo xoolee Siteu nga xam ne changement bu mag mu ngi ci moom kon nag li mu jëm yàlla na jaar fa mu daan jaar ñu di ko ñaanal fii ci kër gi mu génn dem ci jàmm ñëw ci jàmm moom lañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla def. nga gis buy génn waaw yëg-yëg nag boo xam ne nag nag dëgg-dëgg au fond du cœur yëg-yëg boo xam ne buy dem fii du ma nekkati du ma àndate ak sama sago damay jooy ndax xam naa ne dafa bëgg li muy def comme ni nga ko waxee rek bi muy commencé nii di bëre sama benn xarit dafa ne ma waa caba ma ne naa mu ne ma waa yow sa sa mbër mi nag dafa tuuti ma ne ko wande am na jom te jom muy bëre ma ne ko tuuti na nag waaye nag am na dangar loolu loolu tax ma ñeme mu génn dem yàlla na ko yàlla doon. dangar gi da koo wala. waaw ko donn da gi da ko donn nag moom ay maamam ay mbër la ñu woon waaw da ko donn daf ko donn donna la ci moom donna la. te xale la boo xam ne dafa fonk waajur xale boo xam ne ku dégg dégg ndigal li ngeen jëm nii léegi ci suba dama xëy ma woo ko moom ak uh, Abu Ndiasse mooy sama sër tur wee ma réeroon sànq. Abu Ndiasse da ngeen yàq. ko doy waar da ngeen Abu Ndiasse ko doy Abu Ndiasse maa jur papaam Abu Ndiasse moo njëkk a sët si sama kër papaam mooy sama taawu kër moom muy taawu sët ci kër gi Abu Ndiasse bëgg Siteu ba ci xolam. jaral na ko lu ne lu ne jaral na ko ko muy sët bu yaru moom tam sët bu baax moo tax ku baax rek la mën a àndal ku ma déggal nag ku déggali waajuram kon nag euh, ñun dañuy ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla dolli ndam yàlla nañu yàlla defal jàmm. xam ki ñuy bëreel nag xam naa xale yi dinañ ko xam nag mais man xaw ma ko wax dëgg yàlla. moo moo ko jiitu ci bëre. Mhm. jiitu ko ci làmb mhm. waaye ragal naa ne du ko ëpp expérience. du ko ëpp expérience moom. du ëpp si expérience. du ëpp si ta expérience expérience lay bëreek moom ci kàttanu yàlla xaw ma ko de waaye xam naa ne jom ji am ci moom fi mu daan jaar bu fa jaaree yàlla mën na cee def jàmm. bu si taw ngemb wala jëm ñaanal tàllal loxo si buy dem di bëre ji. bu génnee ci néegu ci mukaayam day ràmb ci samay tànk ci diggu kër gi ba toog mu tàllal ay loxoom man tam ma tàllal samay loxo yàlla ñaanal ko ne demal te ñëw. bu boo ko ñaanalee ba mën la loolu bu ngeen fi doon ñëw télévision di ngeen ko gisal seen bopp kër gi ñëpp ay jooy bu ñu bu ñu wanee gannaaw ñëpp man maay jëkk a flanché ba bu ma jooyee rek ñëpp jooy. ne buy dellu si nag may jooyaat buy ñëw sax damay jooy ñëwee ak ndamam damay jooy waaw ndax dafa neex dafa neex si xol dafa neex si xol te xol bu feesee day tuuru sa xol fees ci sa sët bi takku di dem di joŋante ji seen xol dina am lu mu yëg mu dellu si indil la ndam foog sa xol am lu mu yëg loolu rek la. làmb ji muy bëri bi da ko donn ci ay maamam wala dafa xëy rek dugg ci. waaw donn na ko ci ay maamam nag. ay maamam yoof nee nañu dañ day bëre moom ak moom waa maamam dafa bokk yoof maamam daana bëre yoof loolu lañ ma wax waaw xam naa ne nag lii deret la moo dugg si moom. su dee dem di jëflanteeg Alioune Seye nan nga koy conseiller loo koy conseiller ci nu mu mën a xeex bi ma koy jox rek nu mu ñëwee rek yow ñëwee rek sa sa sa sa sa li nga xam ak li nga mën moom lu mu indi fekk si ko si rek ah fekk fekk na ko si bu ñëwee di xeex si dina ko fekk na ko ku mën a xeex ba toog di ko xaar ku xeex a xeex ba plongé ci biir géej gi di xool lan moo nekk ci biir géej gi loolu la nar a def ci kàttanu yàlla bu xeexee song ko hmm. dina ko song ba muy nit ci géej gi ndax ci géej gi la dugg wala duggul ci géej gi ah yaay ah maam ah, wallaahi sama sët leen lu gis dama gis ci ginnaaw yëfi cosaan rek yëfi cosaan rek bu génnee dem jaar fi mu war a jaar. ñaan fan ngay wax fan. fii ci tuur ba loolu moom day day day wër dëkk dëkk bi dëkku cosaan la. Mhm. dëkku cosaan la foo fi jaar rek am na loo xam ne rek war na tax nga jaar fa. am lu la fa tax a jaar. ndax cosaan la loolu ko fay tax a jaar. dem ci ay maamam yeneen maamam yi dul man ñu ñaanal ko loolu rek moo la du leneen. muy muy ñaari doomu dëkk di Alioune Seye di sa doom di sa sët moom yi tamit di bëreeg sa sët di ñaari xale yoo xam ne ay doomi sénégalais lañ lan nga leen di ñaanal parce que ñoom ñaar rek war a bokk ñaan gi lan nga leen di ñaanal. jàmm ak salaam ñu bëre ci jàmm ak salaam indi jàmm ñi yi tamit indi jàmm ñu xam ne rek fo rek la lii du fo la ñu bëri ko ci bëri bu rafet àndandoo bëri bëri bu rafet ànd ku yàlla may ndam li nga jël gànda akolaat sa morom ngeen àndaat dem ndax bu ko bëre bëre daal ay ay ñu yàlla boole rek ñooy bëre. Mm-hmm. yàlla moo leen boole pour ñu bëre nañu bëri xam ne ñoom bokk. ñu bëre ñu xam ne yàlla moo leen boole tey yàlla mi leen boole yàlla na leen yàlla ki ci ki ki nga xam ne yàlla moom la bëgg jox ndam li yàlla na ko jox mu sedd guy ki nga xam ne moom la tey mu daanu na xam ne rek tey rek du bës ëllëg bës la ñu jël ko dans le sport xam ne fair play la mm-hmm. ñu comprendre ko noonu supporter yi xam ne nag ba tey ci suba bi ma xëyee maa ngi leen di ñaax parce que ñun loolu mooy suñu devoir dama leen ne carrément dem leen ci jàmm ngeen ñëw ci jàmm ci seen open press bi non violence ma ne Siteu dégg naa la nga def sa déclaration mais déclaration bu aw yoon la parce que man que bi ma ko déggee dama kontaan parce que noonu la nit buy dem day woote jàmm boo wootee jàmm yàlla jàppale la ci jàmm te ñun ñii jàmm rek la ñu bëgg dañu bëgg jàmm yàlla nañu yàlla dolli jàmm yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla taxawu yàlla nañu yàlla yéer ngeen maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf day def Tawfekh production dellu si na le 16 juillet 2023 ci arène nationale muy première édition drapeau Abdoulaye Djigo di dox ci diggante Giro Seras ak Abou Ndiassé diggante parcelle ak jàmba gën combat bi nga xam ni moom la amateur yi di xaar combat spécial Karbala ak Fëgala bu Ngor première édition drapeau Wan Sow responsable politique ci Parcelles Assainies bébé rëg-rëg ak caatu Jolof drapeau Ifra borom Al Amin service Ouskara ak vite fait drapeau Moussa Niang di responsable politique gëm sa bopp armée 2 ak Boy Silla drapeau Cheikh Tidiane Niang di président de l' association des responsables des ay écurie de lutte Sénégal di yóbba diggante Momo ak Ndeye Fatou Adama Diali ñu fas yéene wàcc stade bu dee supporter 2000 francs amateur 5000 francs bu dee loge officielle 10 francs bés baa ngoog diggante Giro Seras ak Abou Ndiassé lii ku ko tardé tardé lu rëy